Mm-hmm. ren mm-hmm. ci wane ab liggéeyam waaw moom de day suñu lépp bu waxee rek ñu ci mën a teg benn kàddu bu may rek cant ak ngërëm ginnaaw bu ñu leen nuyoo nag waa daayira Muxaddamatul Xidma waaye jiital nuyoo bi suñu kilifa di suñu lépp di Cheikh Mouhamadul Mountakha rawatina nag sunu jëwriñ jii nga xam ne moom la yabal fii mu teew fi di Serigne Cheikh di leen ndokkeel bu rëy bu baax a baax ndax liggéey bi rëy na lool sellal na lool te gàgganti naa tam ay laaj yu bari yoo xam ne nit ñi xamuñu ko woon ci dat ak ci xew-xew yi waaye di ko jaarale ci sëriñ Afia sëriñ baa ngi koy sant bu baax ndax taxawaay bi ngeen taxawee fii de dafa meloon ni lu fi mëntoon a ñàkk te xëy na am na jamono amutoon wala amewutoon nii waaye lii day yokk na taar bu rëy rëy boo xam ne taalib yëpp ñu ngi koy jariñoo di leen sant bu baax lii nag ku fi ñëw tey ba gis lii di nga xam ni Sëriñ Tuubaa li mu waajal ci digganteem ak àdduna dara feeñagu ci ndax ndaw ñi def lii liggéey liggéey bii te nekk ay boroomi xam-xam yoo xam ni seeni at demagut fenn waaye ñu peeg mboolem fànni xam-xam yi bay bindi téere ñooñu ay denc Serigne Touba la te yàgg naa yëg dégg sëñ Mountakha di ko wax daayira Muxaddamatul Xidma di yëkkati seen tur ak seen taxawaay kon dayre bi aw jiw la ci yoonu murit woo xam ni ndax biñ doonee mbokki sëriñ bi ba noppi dañoo laxasaayuwaat di liggéeyal sëñ bi toujours ma dégg sëñ mu Moussa Abdou Khadir wax ko kon liggéey bii daal li ñu gis mooy war naa gën a yaatu ni ngeen yaatale seeni liggéey ci réew yi liggéey bi daayira bi daf ko war a di def ci réew yi nit ñi gën a mën a jariñoo sëñ bi ndax nii mu xam-xamee nii yeneen ni nationalité mën nañ ci jariñu ndax lii fii nii rek bari na fi ñoo xam ne lu bari xamuñ ko woon day ñëw sax di ko laaj kon euh, li ñuy ñaan daal mooy suñu borom yokk leen kàttan yokku leen doole yokk leen xam-xam yokku leen wér ba ngeen gën a mën a wéyal liggéey bi ndax yéen a ngi liggéeyal lislaam bépp di liggéeyal yoon wi waaye nag di liggéeyal jumaa ji nga xam ni bi ñuy dugg si léegi rek dama ne sëñ bi man jumaay tuubaa dafa may jox kaaba gi jumaa ji nekk ci kaaba gi jumaa ji nekk ci kaaba bunt boo ko duggee rek day mel ni moom nga jàkkaar lool ñu jël ñetti mbedd yoo xam bu ci ne suñ nee jàkk rek dañ naan dañuy jàkkaarloo kii bi a xóotaay bi muy xóot nii da koy seetlu ci kaaba gi mu mel ni sëñ Touba léppam dafa niroog lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi leen di sant bu baax ci turu sëñ bi di leen ndokkeel ci liggéey bu rëy bi ngeen def di ñaan itam ndam yi yokk bu baax a baax di leen sant di leen gërëm wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu salaatu lazi fi kulli lisanin wa fi safar Mustafa